te tey dañ fi tase woon euh, pour jëmmal euh, ay kuréel yoo xam ne dañuy yëngu si wàllu njàngale bi njàngale ak bi yoo xam ne dañuy gunge euh, système éducatif sénégalais bi maanaam pour que bi gën a xarañ xale yi gën a seen njàng a xarañ pour nag dafa am benn programme bu ñu tuddee KICS KICS anglais maanaam programme boo xam ne day permettre ñu ay xam-xam ak ay yees yu def yeesal wala loo xam ne ay gëstu yu yees yu def si mbiru njàngale biñ ko defee nag Sénégal avec appui IFF dañu lancé woon benn lu ñu tuddee appel à proposition maanaam ñu ne ñëpp ñu nekk si goxa goxaat yi ñuy yëngu si wàllu njàngale bi ñoo xam ne def nañ ci loo xam gis nañ ne day waral jàng bi gën ñang que ñu mën ko partager donc buñ ko defee aussi gis nañ ni ñu bëgg ñu ci yëngu ci affaire ñang mi jot nañu euh partager liñ jot def légui nak muy ONG comme ko ci def am na si benn inspecteur bu nek ñoro bo xamné ne am na lu mu liggéey ci si lecture bi am na aussi gis nañ ni wa canal inspection bu canal gis nañ ni am nañu ben zone bu doy war bu ñu tuddee ferlo enseignant yi duñ fa top ba école yi ubbi di tej légui nak inspecteur bi ci bopam am na initiative yo xamné da ka fa def pour permettre enseignant yi top gën a bëgg daf jàngale bi ñu ko gisee gis nañ aussi xale yi dañu gën a euh, fréquenté école bi donc loolu nag bu ñu si jógee nag tey nag euh, boobu amoon nañu lu lu tolloog juróom fukk ak ñett euh, ñoo xam ne vraiment li ñu jotoon daf jot nañ ko partagé ak ak ñun donc bu ñu paree nag si la ñu saytu jéem leen xool yan ñoo gën a ñoŋ bi ñu ci paree donc juróom ñi juróom ñi gis ne projet yi ñoo gën a ñoŋ il fallait que nag tey nag mu woo leen fii sargal leen ah jox leen seen wàccuwaay vraiment jox leen ministère bi gërëm leen ah jox leen loo xam ne aussi day permettre que képp yëngu si kii bi aussi nga gën si gën a xarañ aussi ñu xam ne liñ def aussi nit ñi mën a si jàng loolu aussi suñ ko jógee day tax ne euh, ñu non seulement ñu gën a développé fii mais aussi comme programme bi dañ ci bokk ay suñu naataangoo yeneen dëkk comme Afrique. ñu ngi toll ci 21 comme ça ñun li ñu def ñun ñu ne leen Sénégal kat lii lañ def biñ ko defee gis nañ ne jàng bi gën na jëm kanam donc ñoom aussi ñu mën ko partager ñoom ñu mun ko euh, kii wasaare ci biir Sénégal waaye aussi suñu mbokk ñi nekk comme ay Burkina ay Côte d'Ivoire ak ñeneen aussi lépp ñu mun def aussi donc programme bi KIX dañuy permettre ñun ñu mën a séddoo ak ñoom ñun ñu partager ñoom xam lu ñuy def comme ça ñun aussi dañ loolu dañuy mën a permettre suñu système éducatif maanaam suñu njàng ak njàngale bi dana jëm kanam. bon projet bi ñu ngi koy wax euh, observatoire de la qualité de l' éducation observatoire COSYDEP mu ngi ko am ci li ñuy régions du Sénégal yëpp ci chaque région COSYDEP mu ngi fa installé benn observatoire boo xamante ne li ko composé moom mooy euh, territoriales yi les gouverneurs les préfets les IA IF syndicats d'enseignants, parents d'élèves ak élèves yi ñuy daje ñuy dajé ñu gis ni éducation bi ka dafa wara am liñu ñuy ay instance de dialogue ñuy gis ni éducation bi dafa wara am ay instance de rencontre yo xamanteni dañ ci wati waxtané jafé jafé yi nga xamanteni éducation mu koy am surtout au niveau local parce que ñun dañu yagg gis ni éducation bu ñu bëggee dem vers des performances il faut ñu am liñu ñu woowee benn approche bi nga xamanteni dañ koy jëlee ci gox yi manam solution yu jugé ci gox yi plutôt que solution yi ñu tabaxee ci kaw di ko wàccee ci kaw gox yi donc dina permettre gox bu nek manam région bu nek mu dugg ci observatoire am ñu fa jafe-jafe yi ñu fa défi défi a nekk wàllum mu bañ am de maanaam li inclusion ñu gën ko dëgëral ci éducation jafe-jafe scolaire yi la moo telle région di am résultat yu faible ñu ko indi ci solution dëggal ko jafe-jafe mu ngi violence en milieu scolaire mu ngi mel ni Covid bi ak résilience donc chaque région

Euh, jàngalekat yi euh, jeudi bu njëkk bi indi leen euh, Wuro Sogi fi nga xam ne dañoo am ay néeg yu ñu fa loué ñu nekk fa ajuma ji ñu dem fayeeku dem banque def seen i envoi pour woor seen njaboot ak yooyu léegi samedi bi ñu def animation pédagogique maanaam jàngale yokk seen xam-xam ci wàllu jàng ak seen inspecteur chef de district dimanche bi ñu yóbbu leen ñu xool seen wér-gi-yaram ak euh, médecin chef de district bi ñu defaale seen yenn course yi lundi nag ñu jël leen buñ paree delloowaat leen ci seen i seen i bërëb loolu day tax rek léegi ñu bañ a isolé li isolé woon léegi vraiment ñu sentir que ni état bi mu ngi seen wet teguñu leen fa rek bàyyi leen fa mais euh, lépp luñ fa soxla tamit ndax foofu dafa di zone yu difficile ndox dafa jafe na fa courant jafe na fa connexion tamit jafe na donc di leen dugal di di di leen di leen yóbbu di leen indi dana yombal seen nekkin ba nga xamante ni yenn jafe-jafe yu ñu waroon am dana wàññeeku te aussi seen liggéey nañ ko waroon defee danañ ko defee te yaakaar nañ ni bii buñ ko waxtaaree ba fépp ku am jafe-jafe yi ñu doxalee nii rek defe naa ni ñoo nekk foofu dinañ bëgg éducation te éducation dina gën a kanam ci.